àlla gën a xam yonent bi Cheikh El Umar wala Seydi El Hadj Malick wala Baye Niass wala Cheikh Abbas Sall wala Serigne Babacar Sy wala mag ña jël nañu seen kurus jox Cheikh Tijani Cherif weeru ca moom kuy wéeru da seeti borom dayo nga wéeru ca moom ñooñu lu tax ñu wéeru ci Cheikh dañuy nitu yàlla. gis nga sëriñ. gis ak nitu yàlla. ak nitu yàlla bokkul. sëriñ. ak nitu yàlla. ak nitu yàlla bokkuñu. sëriñ mën na ñaan. mën na ame ay secret. mën na amee ay secret. mën na la bindal. mën na la xoojal nga naan. mën biir ya nga àndaloon wér. nitu du def loolu. da ñëw ci moom mu jàpp sa loxo fexe moom fa mu toll bu la mënul tollale foofu it mu fexe ba boole la ca gaaña gaaña nag mooy ña nga xam ni zikkar nañu ba ñu indil leen xaqiiqa seen kanam xay ba jaaxalatu guddi ajuma ñu sol seen yu weex tàll siège ca xadaratul ilahiya nitu yàlla bu nekk ca Égypte nga di ko gis di wax ak moom te yaa ngi dëkk Sénégal te jëloo avion dem seeti ko. ñëpp toog mag ñu baax ña nga xamoon daje ca saal ba yàggul tuuti waaj a jóg gàddu haut-parleuru leer ga ni déglu leen te ngeen dal leer gaa ngi ñëw leer gileen leen leer gi leen tabbu mi ngi dugg si yàggul tuuti rideau ya tijjeeku borom manto ba dugg si sikkim bu rafet ba ti Tidiane Chérif a ngoog fauteuil pour moom dong la. bu toogee. amul kenn koo xam ni. sañ na ñëw bokk ak moom fauteuil mooy toog mbaggu nday jooram mbaggu càmmooñam nuurul ahma nuurul ahza nuurul ahma nuurul ahza xaafu takbir xaafu takwiin xutbul xaafay ni borom xam-xam baa ngoog leer ga di baawaan. waaye des na rafet ba léegi. des na rafet di. ndax yonent bi dugg seegul. ndax yonent bi dugg seegul. li dàq mooy. su demee. su ba Cheikh toog. ba Cheikh toog ba jékki saa nag. ba jékki nag. xool buntu ba buntu ba ñaari batan ya tijjeeku ñu puus rideau ya ñu ni leer ga nga xam ni nag moo bu kii nga xam ni moo tabbu wëliwee leer gaa ngay ñëw jékki saa tuuti jàllaabe bu weex ba cat ba duggu nga xoolati kanam gu rafet ga duggu nga xoolati sikkim bu weex ba dugg si nga xoolati borom mbagg yu leer ya dugg si nga xoolati borom loxo yu rafet ya dugg si yonent bi feeñ Cheikh Tijani Chérif jóg daal di koy accolade loolu ku ko foto woon jar na lu ne dama ni lu ne. macha allah. Ababacar ñëw Umar Ousmane Alioune toog wër Cheikh Tijani lu tax mooy xat mi ya ba jàngi leen waay xat mi ya ak kan ñaari secret xutbatul uzna xutbaaniyatul kanzam baxrul kanzi fii leer yaa nga nale ca baxrul miftaax baxrul kunuus baxrul xaasiya benn bu ca ne naan ca ba pare jox cheikh kurusam mooy waaja kenn mënu ko bañ leer ga di tàkk mëni waxuma ci kuy nelaw de waxuma ku yeewu di weddi de waxuma ku xëy àjjuma fekkewul di wax de ku fekke laa wax ku fa toogoon laa wax ku ko yëgoon laa wax ku ko xamoon laa wax xam nañ li xew yonent bi ñëw toog cey yonent bi moom tam kenn du moom yonent bi kenn yàlla dafa wax ni yaasiin wal quraanil hakiim innaka la minal mursaliina ala siraatin mustaqim mais ba léegi nag nit ñi xamaguñu xaqiiqa ba xaqiiqa yonent bi ci boppam ñi ngi wax sànq ba léegi de naan kenn du cheikh mais kenn du yonent kenn lu ma jaaxal ñi ni xadaratul ilaahiya di ci jaaxle pourtant Cheikh El Hadj Malick moom la doon junji ca ba mu waxee ni tuubaanu tuubaanu ahmaluna yawmal xamisi lahoo wa yawmal isnayni fi istigfaarihi jurami bañ a gàmm